ni ñuy jëfandikoo drogue bi ca banlieue bu ndakaaru bu nu ci waxul musiba dina am ba tax journalu futur média bi ak journalu des média bi di l'observateur ak la tribune xëy di ci wax journal ru 15 angle bi ne ca banlieue bu ndakaaru féppoo jaar na fa gune waxambaane ba ci màggat ya di jëfandikoo drogue ba na la ko yàlla nëbb te firnde li moo di la centre bay xeex wàllum drogue te nekk ca Caaroy ba ci centre Jacques Chirac Fesal doy na ñaari di drogue baa ngay tas banlieue bu la gën a sànk l'observateur firnde la jën ndax nag soxna si li mu xamal sama naataango moo di ne dem na ba toll foo xam ne bu jëlul dorog du nekk maanaam dafay mel ni ku jànnaxe beneen pa bu toll ci juróom benn fukki at ak juróom di wóyoo ci turu Aziz Diagne moom li mu wax waa l'observateur moo di ne dafa jëfandikoo dorog ba mënatu koo bàyyi ba tax moom ci boppam moo sol dàllam dem ba ca kanamu police ne leen jàpp leen ma ndax ma mën a bàyyee dorogewu la tribune ne nekkul paayeek waxambaane yi rekk ñooy dorogewu waaye nag élèves yi nekk ci biir l'école ya nekk ca banlieue bi kenn du ñoom te boo jël juróom ya tàtt la ñuy def maanaam ku ci muqiwul ngay phone wala ngay xol observateur ne dama ni banlieue bu ndakaaru ni jëfandikoo dorog bi ci bopam mo jéggi dayo te mbir ma mo ngi ëppee ci Pikine jàpp géejawaay peul askan wa fa waa deskos màbboon dekk way tabbi nañu ci ab grève xiifal grand place mi xey bind xibaar bi ne tollu nañ ci jooni ak juroom ñeenti téeméer ak juroom ñaar fuk ak ben gene ka bi ne njabot yooyee gannaaw ba waa deskos màbbee seni kër danoo xaar ba xadi déglu ba sonu kenn walu wulen grand place ne li mo taxa askan wowe tabbi ci ab grève xiifal te nag nee duñu delu gannaaw lu dul ni ñoo am lu nu teg ci seen loxo 24 heures ne lii daal li muy tekki da ngay jënde fukk di jaaye juróom wal fu quotidien ne dëgg la réew mi jamono ji fu la cin li ndax bukki bi màttoon président Abdoulaye Wade mooy yoot président Macky Sall ndax nag yéenekaay bi nee lii di ñëw gisuñu ko déggunu ko waaye bu nu juumul nguur guy daanu lay nirool vox populi ni ñi daanu ba yegg suuf kay ñoo di gaañi fare ci kujje gi journal bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war ko gëm modé né ne bu njëkk li daan metti askan wi wa ku jigi ñoy ña ca daan jitu waaye nak ba fi li metti askan wi activiste di ñom ñoo tax journal bi né li mo tax ñu né wa ku jigi def nañu carte appui L'As Quotidien melni kuy tontu sama na tangoy na leen def leen dank ndax nak yeyum kaani xeeñ du yeyum goro ndax nak bo leen jëlé ku ci melni Khalifa babakar Sall mo ngi waajal coalition bo xamni bëss bu ko toggé ba mu ñor kenn du ko àttan susaane firnde li rek mom Khalifa babakar Sall mo ngi won ca kër gaynde ak Bawol gi di ci it ñoo lank ñoo ban ñi demon nan séti ko moom Khalifa Babacar Sall te ci ay xibaar yu nu mujjee jot moo ngi waajal ay tournée ci biir réew mi biir réew mi fi la mbuur géej nekk l'observateur las les échos vox populi ba ci le quotidien nee nan démb mbuur tàngoon na ba àgg ci lool les échos ne li ko waral moo di ne nappkat ya ñoo doon kataa bu méttee ka takk deree sabab li moo di ab quai de fa bëggoon a taxawal moo li ne leen du ca dal te kenn du ko fi defee jëwrin ji sàll wàllum napp gi ba a dul ab quai de pêche les économies lu ci mën di am daal mbuur démb tàngoon na ba àgg ci lool xeex bu metti moo amoon ci diggante mool ya ak takk der ya waaye nag journal bi nee na ca mujjantal ga mool ya ñoo ca am ndam naam ne teg nan loxo ci ñoom ñu bëri ndax nag yéen kaay bi nee na mool ya danoo jiital takk der ya gaay ya ànd ak seen i liif ak seen i gaz wane gannaaw di daw xeex ba mujjee jeex ci diggante mool ya ak takk der ya jërëjëf Serigne Saliou dinaa la